demam nga umpuna mindeef te um na boppub kuy mindeef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te bar sàkk ne xiim bismillahi rahmaani rahim sëñ bi mm, jóge ci sëñ Ahmadul Maxtaar mu tànn ay doom yabal nu ci njabootu sëriñ Tuubaa gi ci màggal gi muy bëgg a def ci bii di ñëw mm. yàlla def na màggal gi ren day dajeek téeméeri at yi hmm. te xam na ne màggal gi màggal Sëriñ Tuubaa la hmm. mu ne woon comme que dafa am beneen cachet bu bees ci màggal ndax téeméeri at yi mi dajal hmm. bëggoon na njabootu Sëriñ Tuubaa gépp yëg ko ànd ceeg moom ñaanal ko ba li ñu ci bëgg ca saare ci lu bari ci sëñ bi ba lu bari sëñ bi lépp lu bari xam nañ ko ci moom waaye am na yu bari yu des ñu xamul ci moom buku ko ci magal gi nak def ay conférence yu bari ak panel yu bari pour ay borom xam-xam yo xamni ni nañ len muy ci bir mouride gi ak ñeneen yo xam ne dañu murit sax ay professeur yépp dal ñu am thème yu bari ñu tan yo xam bëgg ko waxtaan sëñ bi lool nak mo mo waral su ñew fi ñun ñun ñi ñëpp sa yakana sa doom fi nekk yépp xam nga len ñëwoon nak sàkku sa ñaan ak say xalaat ci ci turu sëñ sëriñ bi nag niñ ko xamee lim fi nekk lépp liggéey bi mu fi liggéey bépp dara desu ci lépp mat na ba am ngërëmul boroom ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam bi mu doon liggéeyal dëkk bii nag di Touba di dëkk bu mu bëggoon lool waaye suñ boroom natt ko ci itam ba ni ñu ko sëñ Blaat nettali te ñëpp dégg ko mooy juróom-ñaari rek la fi am mu génne ko fi tukki yim tukki yëpp it ak fi ñu ko yóbbu fépp it wax ju wax rek buy tudd Touba dana wane ne dëkku boppam la ndax boppam rek la ko moomale mu amoon projet bu magit ci dëkk bi ndax Matlabul Fawzayni projet la boo xam ne bi mu koy def eh, booba dara nekkul ci dëkk bi Eh, fi mu nekkoon di ko def bi muy ñaan ku fa nekkoon itam da ngay jàpp ne boo borom gis-gis da ngay jàpp ne ak loo am am xam-xam da ngay jàpp ne sëñ bi kat lii muy wax du lu mën a ne ci jamono jooja eh, bi mu liggéeyee nag ba sun borom andi ko njaareem mu dénkaane itam ak njabootam ci njiitul Cheikh Mamadou Moustapha ak rakkam ak yoon wi yëpp ngir ñu ko waxtu jamono soppi ko loolu itam mu am lu mu leen ci diggoon ci bu amee bu ñëwee tubaa te xat demut lépp lu ñu sumbati lu ne dana sotti ba ne coleet su amut nag coono rek kay am ndax moom loolu du ko wàññi dara njaboot gi nag ci njiitu sëñ Modou ak seen yitte fexe ba ndigalu sëriñ boobee ni ñu daan defee ndigalam ci waxtu worotee ñu ñu defee ko noonu boobaak légui nak di ci euh, ci wam sasin muharram bi ñu jëm mo tollé ak wam tasin mu téméré at sëñ bi nak ni waxé légui kilifa yi wax ko modi di ab liggéeyam lépp rafet na defar na aw nit ñoo xam ne mën nañoo yor jamono ñu mën nañoo jiite jamono loolu nag lañ bëgg a wone ci ndigalu sëñ ahmadou ci ndigalu luñ jële ci sëñ muntaka ñu won aduna rek ne serigne bi kat liggéey ni li mu liggéey lepp waye ñu fi bayyi ñepp li dalé serigne mourou Moussa serigne Fallou serigne abdul Had serigne Abdoul Khadir serigne Salihu Cheikh Mamadou Amin serigne Sidi Mokhtar ba serigne Muntaxa mi ak njabotuk serigne bi yépp kenn ku nekk liggéey nga liggéey bo xamne buñ mëna tek bëd la ci euh, domaine yu wuté serigne am wax nak ne loolu lepp nak suñ ko bëggee waxtaanee mënuñu ko def ci bisu magal kon nañ sak yenen bis moo xam ci réew mi la wala bitim réew nuñ fu ko mën a defee fexe daal ba tasa wax euh, jëf yooyu ci domaine yu wuute yooyu lu ci nañu waxtaan ci te tànn ay borome xam-xam yu mën a waxtaan ñu waxtaan ca loolu nag li sëñ Cheikh wax sëñ bi waxoon nag ne nañ ñëw ci yéen ndax xam nañ euh, taxawaay bi nga am ci yoon wi mu yàgg leen a ñor ci wàllu xam-xam ak gëstu ngeen daj ci lu ne ba doon bokk ci ñi nga xam ne mën nañoo jàpp ne ay delluwaay lañ ci sëriñ bi ak ci yoon wi ci ci anam yu yëpp nag ci anam yëpp euh, sëñ bi wax nag ne loolu euh, dana am solo ñu ñëw fi yéen taatan ci yéen ay kàddu ngir loolu mu bëgg a lépp de dara génnu ci sëñ bi ak wane ko ndax euh, sëñ bi moom ni ñuy wax rek kenn kenn kenn kenn bañu ko xëy na maanaam mënees na ko umpale nag kon nak ñi fi nek ño war taxaw ci nu nit ñi xamé sëñ bi ndax bëgg ko ndax mom zanaf en bila dara la manam mom da mom mom njariñ la lu ak lor hmm. leneen lu mu doon ci aduna nak man na am njariñ mana na am lor waye sëñ mom jaring njariñ la lu àndut ak lor kon nak euh, bu ko ñëpp xamee euh, danañ ko bëgg te suñ ko bëggee dana jariñ waaw kon lool dal mo doon mo doon tank yi euh, di ñaan itam nga ñaan ci bu baaxa baax ndax ab défi la boo xam àdduna soxla na ko te itam euh, lu baax yombut waaw te fu ay nit ñu baax jóge ngir bëgg lu baax xëy na euh, góor mag moom dana gembu fas yéene euh, lu mu gàllankoor donte sëñ jëflante naa ak moom rek ngeen ñaan ci daal ba ni ko kilifa yi bëggee ci wane sëñ bi ak tasaare ko ñu amee ca ñu amee ko ci noonu te lépp na ngërëmam rek lañ ci so lañ ci sàkku wala barakaatu ñu ngi jiital ci nuyoo bi sëriñ Ahmadul Moxtaar suñ mag ju baax jooju nga xam ne moo leen fi yebal di ko siyaare bu baax a baax a baax a baax ci lu rëy lii nga xam ne moom la ñuy waajal te di ko waajalal yoon wi yëpp ndax mbirum yoon wi la nga xam mbirum sëñ bi la mm-hmm. te amuñ loolu sëñ bi mm-hmm. te ginnaaw yàlla tawfeexal nañu ba ñu fekkee téeméeri atam mm-hmm. war nañoo sant yàlla bu baax te it day mel ne màndarga la nag moo xam ne war nañoo soññ war nañoo yokk suñu itte ci ñi ngir ñu ngir xamle ko ba ñëpp xam ko loola kon ndax juróom fukki at màggaloon nañ ko bañ ci tolloo muy 77 biñ te agsee fii nag ngeen indi date bi nga xam ne sax moo dëpp bi nga xam ne mooy la sëñ bi wàññee mooy mooy weer weer yi tamxarit yi muy téeméeri atam loolu moom muy lu réeréer yi sant nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax ñi ngi ñaan ñu àgg ci ak jàmm te liñ ci yéene mm-hmm. sëñ Ahmadu yéene ko ci mm-hmm. ak mbooleem njaboot gi mu ko ànd gépp mm-hmm. muy mbirum sëñ bi gën cee fese ñu gën koo xam yàlla ko ci yàlla def ndax sëñ bi moom loo gën a xam ci mbiram gën a jariñu lu ni toll lu ko réew mi gën a xamit réew mi gën a jariñu lu ko jullit ñi gën a xamit jullit ñi gën a jariñu te moom njariñul jullit ñi la la doon ñaan waxtu wu ne dama jëlale ñi ko aji ci moom waaye waxtu wu ne mi ngi naan najji ayaalal Mustafa baada salah maa salaamin min idaahum alxula yasir lahum bihi alladi taassara kullu ma yasartu wa tayassara njabootu yonent bi la def ak njabootu mu ñaanal leen ñëpp da yàlla leen ci fexem noonu te lu ñuy wut lu ñu mu jàppandi la kon kooku xam nga fàttiwul njaboot njaboot wax na feneen nahnu ayaalu wal ayaalu ajdaru bi an yuxassasa bi xayrin yandu mm-hmm. ñun ñooy ñooy njaboot bi te njaboot boo yoree yiw wu raar wu néew mm-hmm. njaboot nga ko war a jox mm-hmm. kon kon fàggul da fàggu na lu mat a fàgg kon bis bii nga xam ni moom lañ koy fàttalikoo na ngeen ko yaatal bu baax ni te ñi ciy waxtaan nañ doon ñu xam sëñ bi rek ba mën koo leeral sëñ moom lépp loo xam ne si ki ko wax gëstu na ko mm-hmm. te teg ko fu wér mm-hmm. nopp bu duggee ci nopp ci xol lay jëm waaye dugg ci nopp bi génn bi lépp loo xam ne am njàngaleem la mm-hmm. loo ci leeral bu duggee ci ci ci nopp ci xol la jëm loolu wér ne moo ko wax bu duggee ci nopp boo ko jotlee bu duggee ci nopp ci xol la jëm kon ndax léppam dafa wér léppam loo ñuy fexe da cee lépp yàlla la ko jëflanteel liggéeyal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam liggéeyal ko yàlla ñoom ba muy dénkaane it ñoom la dénkoon moo tax noonu nga ko waxe nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani laka wa diatu dëkkam bii ak diineem jii ak waa këram ñii ak njabootam gii ñëpp maase naa ko teg ci loxo yàlla yàlla mu fi dul jóg kooku nag wootu na ko ci ndax bi si bi ñu indi sëñ bi Tuubaa gii kat booba kër yi mën nañ ko wàññi booba de boo boo ne daaru minam ne leew na ne mbàmpa na ne kër sëñ ma sàmb boo dëkk bi daal day daal jeex te fu ci ne ay kër la sax yoo xam ne sëñ bi tànn ñi fi ne mm-hmm. yabal leen dem leen ni ma ci sama dëkk ba mm-hmm. waaye boobu dëkk bi xumbaay bépp njaarim la moo xam bu waaye Tuubaa moo xam bëgg mm-hmm. sëñ moo doon taa tànn rek léeg-léeg mu seet ci waa kër ci donga yi rek mooy ko ñëw ci ñuy dëkk di dëkk si waaye bëriwul moo tax bi ñu koy indi Tuubaa ñu ko fekkee sax bëriwul te te te bii ñëw tax koo guddee kon sëñ bi noonu la doon dunde dundale noonu la doon waajale dëkkam bii ndax lu bari daana wax ne maa ngi koy bëgg indi ci dëkk waaye dama bañ ñi yàq jiituma damay nekk ba ñibbisi ba ñu ci dëkk ba boo nag nit ñi xamuñ ñu gi muy wax waaw moo tax xéewal yépp boo gisee ci ma madul foo siin sax bi muy naan wam nun xalal ahli la wax nga xam ne kon xam na ne booba du ko fekk bi maa in jaari waaw <laughs> xalal ahli la <laughs> wax ndox muy daw kon xam nga ne na xam na ne xalal ahli la wax waaw xam ne loolu gannaawam lay ñëw li mu doon sàkku lépp xam na waxtoo muy ñëw xam na it wax waa ñi koy jariñoo kon li mat def mooy e, ngeen góorlu ci borom xam-xam yi ko mat yëg yëpp bu leen ci gàttal ñi ko war a yëg yëpp nañ ko yëg ndax biñ ko fi njëkkee def ñu bari ci lañ xame sëñ bi ba moo leen mooy seenu sababu ñu tàbbi ci yoon wi ndax njàngale mu wér lañ leen ci jàng ndax sëñ bi moom nee na moom soxlawuñ soxlawut ko ko propagande ndax eh, ki may wooteel am na am fu mu mas a dem mm-hmm. am kuy wax ne ñëw leen jébbaloo ñëw leen jébb sëñ bi nag am na kooku wax ne nee leen ku na bàyyi nañu wax mm-hmm. man ki may wooteel a gën a jot baat kooku mm-hmm. mu yàlla kon moom waaw waaye nag mbiram kuñ ko leeral mu tàbbi soxal te comme tàbbi soxal nga jariñu te yéene nañ njariñ ñépp kon na ngeen ko fexe ba yaatal ko ñu liñ ci war a wax ñu wax ko luñ ci war mat def ñu def ko ngeen xam ne moom lu mu ku gudd fan da nga ci teg sa bët loolu moom ñu sama turando suñu wul sa lu ma wër ne sëñ bee wax moom la li ma teg sama bët li ma wér ne sëñ bee wax te gisaguma ko laagan doy loo ci waaw waaw kon kon nañ roy ci loolu xam ne ñoom dañoo xamoon sëñ bi jaaxle musuñu ko am ndax xam nañ ne sëñ bee yoral boppam mbir mi moo tax musuñoo jaaxle sëñ Moussa bi muy toog yëf yi jafe na lool waaye nee na musta jaaxle ndax wóor na ko ne nee na sëñ bee yoral boppam yoon lu mat a def rek moo lay sagal rek boo ci jëm rek mu daal di ubbil mu kon nag nañ góorgóorlu bu baax ci bis bi góorgóorlu bu baax ci yaatal ko góor góorgóorlu bu baax ci fexe ba ñu xamee ci ci sëñ bi lu bari luñ ñu xamee utoon waaw ndax moom kat bind na mag ñi ñu baree bari ñu wér ci mag ñi bind nañ moom sëñ bi bind na ci xasay bind na ci loxoom lu mat a bind jëf na it ñu gis kon daraam dara am ci xam xanaa lu agseegul rek waaye dara dara am wërta réer te du mën a réer waaw waaw kon nag yàlla na nu yàlla dimbali ñu am tawféex yi di gën a am ci moom positif rek di gën a di gën a dimbali nit ñi it ba ñëpp mën cee jariñ ndax sëñ Abdou Xaadir dañ ma sëñ Faatu ñu naan ko diw dafa dafa dafa ñàkk jublu sëñ bi mu ne dee tuub ko loolu kenn du ko wax da wax daa umpali sëñ bi daa umpale sëñ bi waaye sëñ bi kooku umpale njariñal kese la lu ànd ak lor kooku umpale daal koy daal koy bëgg <laughs> kon sëñ bi mel na ne koo ko leeral bam leer ko rek mu mu mu bëgg te bu ko bëggee rek daal daal di jariñ te moom lim mu yéene mooy ñëpp jariñ njariñ la lu ànd ak njariñ lu ànd ak nag kuñ ko leeral rek saxal na waaw kon nag yàlla na ci yàlla àggale bég nañ ci bu baax a baax a baax a baax ndax euh, euh, liggéey bi liñ ci bëggoon mooy lii rek mu wéy di gën a jëm kanam lu mujj dàq te loolu fa te fàggu na ko <laughs> ndax ku fàttali ku fàttaliku suñu wursaa di toog de boo ni jamono ji meloon boo ko laajee ci mag ñi ba xam taarix bi booba wute naag tey lool metti woon na lool te waaye nag lu mujj ñëw rek gën a yaatu ñoom xam nañ ne leen lu leen sëñ bi sant rek mm-hmm. moo tax bi mu leen sant jumaa ji mm-hmm. tabax bëgg a jumaa ji toll nii mm-hmm. dëkk ba nga koy def amul ndox nga xam ne eh, ndox ma maanaam dañuy rootaan nga bëgg a ñemee engagé jumaa nii te te dencoob xaalis loolu ngëm ngëm moo ko def ak ak booloo ehm, ak solidarité lal na kon moom mu àggale yoonu murit fu mu àgg yàlla na ci yàlla gën a dimbali maa ngi leen di gërëm di leen sant di ko fas yéene ànd ak yéen bu baax a baax a a baax te di ci bég bu baax a baax a baax a baax eh, lu luy luy gën a luy gën a jëmmal sëñ bi la te sëñ bi moom lu mbi nit nit yàlla yi njëkk yeeg yañ xamoon woo lu nit rëy rëy may boo doxee téeméeri rek sa mbir daana tàmbali li mel na mel ne luy wàññi waaw di waaye moom bi mu amee téeméeri at ci la gën a yees ci la gën a yokk waaw ñu bari sax gàtt na ci moom boo xam ne boo leen bu ngeen leen ko wax nii sax dañu yaakaar ne war a guta mat loolu ndax ndax ndax ni mbir muy màgge ak ni muy doxe waaw ak fas-fas yi ni muy yokko waaw kon nag eh, ku ku yàlla beral loxo la leeralal nit ñi bu baax a baax a baax li ma leer ci ci li ngeen di def ci Ndakaar ak ci li ngeen def ci Louga lépp mm-hmm. ku ne sax mm-hmm. jaar fa jaar fa rek ci ci liggéey bi mm-hmm. ci ci lay wane mbirum sëñ bi la ndax fu ci ne sëñ bi ba mu fay jaar metti na waaye ba mu fay jaar jëm Ndar bi tar na waaw waaw ñëpp fa jàq am na mag am na mag ñoo ne dañoo dox topp ci yoonu saxaar yi rek bàgg Ndar ndax jaaxle ku mel ne sëñ Mouhamadou Lamine Gueye mii ci la woon affaire dëw si noonu la def tof tofraay bi rek ndeysaan daa jaaxal moom nettali na ko boppam mm-hmm. ida dakartu dalika al wa dalika al wa subota mm-hmm. taarat ila jihaadi bil armai nafsi walakin dabba ma sa waxee ne mm-hmm. moo fàttali ko tartar ga ak saxal gañ ma fa saxaloon bind na wa subota wa tasbita tasbita moo ñu toog loola fenn subootaa mooy nga sax fenn rek ñu toog loolu foo mënut a jóg ndeysaan nee na bu fàttalikoo loolu day bëgg a jóg jihaat ci xeej waaye fu ma koy bëgg a defee yonent bi dàkk ma ne ëpp naa def koy fay li gën a gën gën a gën gën a forlif ba ci njaarim gi ngeen mu it raamoo masiiri ilaa Jurbel la daal la sasi law aayanoo sirra ma fi sir fi raamoo bi ma tubaab bi jigee jolof ne nañ ma yóbbu njaareem ñoom bu ñu xamoon mbóot mi ni ci yóbbu ma njaareem duñ ko def waaw ci la ci la yoon wi gën a yokkoo ñi ko ñi ko doon def ci la seeni pexe yoo xame ci lañ tàpp tàmbali di xëccoo ci seen biir di seeti dinañu waaye fale mbirum sëñ bi waaw bu bu fekkoon nekk na

علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينساتي جالب النيران أو جالب العارين في القسران لم ينحني درو نار الدنيا دمام غومبونا من ديف توب نبوب كوي من ديف كدول مراكا يقوف أك يالا أك نمكا واخ يرن باك أهل بدر يري ديكو دفر moo tax xamee su ca lu wér demiinu yonen la ko jox la dala njur ba këram malaaka sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàkk ne